acha fo dem bisana ngi non bandi géew fo dem bisana si fajan ngor daba borom weli ngara mang ngi lay ziar dem xuraan ne acha ay kam bay wa ngeñen la fi gis de acha kop sadaqa mo den bok ah wa de de lañu sarah sarax yi ñu mëna ginar bu neex Acek ordinal. Oh, oh. Zirik. Zirik. Zirik. Zirik. ハハハハ